الله أكبر asalaamaaleykum. yi ñoo leen di nuyu di leen ndokkeel di leen jottali kàddu sëriñ bi sëriñ baa ngi nuyu nuyu di ndokkeel. bis bu tedd bii nga xam ne ci lañu nekk yàlla na ko yàlla nangu dolli di sant yàlla bu baax a baax ci fekke gi nu ko fekk ren te ñaanoon ko ko daaw yàlla yàlla mayaat ñu fekkewaat ko tam ànd ko wér kàddu yi sëriñ bi wax ñu jottali nag dañ ca tënk dañ koo tënk ci benn tomb tomb ba mooy fi jamono toll léeg-léeg waxtaan ak njaboot gi rawati ca ña ca di ay ndaw daf koy jar lool ndax lu xew rek ndaw ña ñoo ciy gën a sóobu seenu doxe nit ci lay gën a gaawe muy jënkaane boo xam ne nag mi ngi ko jële ci ndénkaan loo xam ne Cheikhul Khadim moo ko dénkoon alxaji Mahamadul Fadal loo xam ne la ko war waraloon jaar ca dana yàgg lool waaye bu ñu jaaree ci dénkaane bi rek ku dul moom it dana ko mën a jël yóbbaale ko sëriñ bi daf ko bind bataaxal Cheikhul Khadim moo bind Cheikh Mahamadul Fadal bataaxal mu ngi nii may bëgg a jàng bismillahi rahmaani rahim amma baad falaa yaxurannaka yaa bunay qiilu nnaasi yaa sayidana wa bna sayidina fa inna afdal alsiyaadati ma ktasabtaha li nafsika laa ma ktasabaha laka aabaun wa juduud wa inna alfaxra fi alafcaali wal aqwaal laa fi alacmaami wal axwaal wa inna alsharafa fi alhimami alcaaliya laa fi alrimami albaaliya li anna sharafa alacraaqi yaxtaaju ila sharafi alaxlaaq walidalika qaalu laa xamda man sharufa nasabu wa saxufa adabu wa qaalu kun osaamiyan wala loolu la mu tekki mooy sëriñ bi daf koo bind ne ko yow samas booba sëriñ Fallu jaayanteegut ak sëriñ ci njureel gi ko jur yaa jëfandikoo bu waxi nit ñi war mukk nit ñi nag li ñuy wax te mën a war ku nekk mooy sama sëriñ sama doomi sëriñ ak yu ko niru ci ay baat nee ko dool bu mu la war ndax li nit di gën a nit du doon kese kese luñ ko fàggul ci ay maam ak i baay waaye li nit di gën a nit ñi dëgg-dëgg gannaaw bu ko ñooñu fàggulee indi ko ci kaw suuf mooy lim fàggul boppam ndax nit ñi ngi koy nawe ci lim wax wala mu jëf ko waaye deesu ko naw rek ci boroom baay baax yi wala boroom najaay yu baax yi nanga xam ne nag teraanga dëgg-dëgg it joj àdduna jëm àllaaxira li koy tax a am mooy yitte ju kawe waaye ña fi bu yàgg ba ku seetoon fañ leen def dafa fekk dara mënuñ koo jox kenn tilka ummatun xad xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluuna amma kaanu yaamaluun nee na daal yax bu rëy jikko ju rëy ko gën nee na ko it ku ñu ku ñuy tagg ci aw askan kese kese suñ ko bàyyiwut léegi tey mu wax wala mu jëf lu yóbbu loxo gémmiñ te doon ab tib ne ko da ngay fexe ba jëfandikoo léebu wii nga xam ne wu naar yàgg a wax la fexeel ba nekk isaam te ba ñu nekk ay yax kese kese kun isaamiyan wala takun isaami isaamiyan isaam ab doxandéem la woon bu ñëwoon cib dëkk ñu doyadal ko lool kenn tegu ko fenn waaye nag mu sukkandiku ci bëgg boppam ak xam boppam sëriñ bi nee na ndaw du gëm boppam waaye day xam boppam te bëgg boppam te ku bëgg boppam ak ku rëy neexut a xàmmee waaye bu jëf jëflante yow nga xam ko ndax jikko ja mooy tax dangay xam ne suy jëflante ak yow du jëf mukk lu ñuy lu yëbb loxo gémmiñ sa doon ab tibb waaye du ko defet ñu di ko dégg ansam moomu nag nekk fa ca dëkk ba ci góor góorgóorlu boppam ba xëy xëy buur woo ko teg ko ci peggam ne ko du ma def mukk loo yëgut wala ma di ko wax te loo wax ma def ko moo tax ñu daan léeb naan fexeel ba nekk ensaam te bañ a nekk ensaam ensaam nit la koo xam ne daa ñëw ci dëkk bi tumuranke fa lool kenn bàyyiwu ko xel muy dem di dem ci ñaqu boppam ak góorloom ak xam boppam ak bëgg boppam ba jege lool buur àgg di def di dindi sëriñ bi ne la kon mu ngi dénk ndaw yépp ñu bañ a gëm seen bopp waaye ñu xam seen bopp euh, xam ne ku ci am paggu teefu ñu baax indi la ci suuf dangay fexe ba fu ñu yemoon nga weesu ko te bañ di leen waxtaane kese yam ca euh, asaam moom moo waxoon ne nafsu isaam nafsu isaamin sawadat isaama wa allamatul karra wal aqdaama wa sayarathu malikan humama kon sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di delluwaat suñu boroom di ko ñaan nii mënu maye ñu fekk ren ñu ñaan ko mu fekk fekkewaat déwén tam ànd ko wér ñi nga xam ne ñoo fi bàyyi ko ci diggante daa ak ren it sëriñ bi nee nañ xam ne seen seen yaafus yóbbuwu leen ñun ñi fi des suñu njàmbaare wala muus te bàyyiwunu fi waaye nee na mi ngi jaale ñëpp di ñaan suñu borom ñëpp mu dugal leen ci biir yërmande di jaale bokk yëpp itam suñu dëkkandoo ju dëkkoon fii ci dëkk bi Alaaji Maam Mor Mbakke moom Cheikh Mahamadul Fadal te Cheikh Mahamadul Muntaxa dénkoon ko lu jëm ci daara yi ak njàngum alxuraan bi yëpp sëriñ bi nee na ne ñëpp ñaanal suñu borom wanale ko ak mboolem ñi bëgg a gisante ak ñoom rawati ci nag way juróom ak maamam ja di ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxa mi fi nekkal Sëriñ Tuubaa suñu boroom yàggal ko fi te may ko ak wér te saa bu geesoo nag gis ñu ci gannaawam ñu topp ci moom di ko jaarale ci alaaji abu baraka moom Cheikh Mamadul Fadal moom it suñu borom àggale ko naalam yépp eh, te mu ànd ko ak sëriñ bi ak mbooleem ñi ko séqal sëriñ bi Cheikh Abdul Fadal laa ci jublu di ñaanal waa réew mi yépp jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm di ñaanal yàpp réew mi yépp ak wér yàlla na fi yàlla def ak wér di ñaanal réew mépp naataange yàlla na fi yàlla def naataange di ñaan suñu boroom nawet bii nga xam ne ci lañuy dugg mu doon nawet bu àgg bu barkeel te ñun ñi ñëpp ñu fekk ko te muurloo ko asalaamaaleykum wa rahmatullah